mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di waat euh, bu baax di leen gërëm di am mbégte teewaat fii ci ndimbalu suñu borom ak kattanam di sant yàlla bu baax a baax di nuyu El Hadj juuf ab du Top euh, di nuyu Sonyibou di nuyu gu maa jigéen ay Aïcha Betty Souka waa solution yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax di rafetlu liggéey bi ba ci fàllu <coughs> ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. tey nag euh, ñu fa yéene rek euh, soobu ci waxtaan bi di ñaanal ñëpp jàmm di am mbégte nag teew fi di waxtaanee rek réew mi ak euh, yoon wi ñu tegu jëm ci élection yoon wi nag xajam loolu mu doon élection yoo xam ne Macky Sall da cee lal ay ndëgg sërëx yi bali moo ne diggewul woon loolu ak ñun bi mu fi njëkk a wax ci réew mi ak ba muy dem ca Nations Unies mooy bi mu naan du doon candidat daf na woon day def ay élections yu leer yu tegu ci yoon ak li jëm ci kuréel gi naan fit di front boo xam ne ngir ñëpp bokk ci élection yi la opposition bi rawatina ñi bokkoon ci Yewwi Askan Wi ak ñeneen séq ko gën kaa yaatal maanaam lu toll ci fanweer ci ay organisation ak coalition politique ngir rek élection yu leer waaye te ñëpp mën a bokk loolu la wax waaye tànk yi Macky Sall nekk ak i nitam mooy élection yi leer ak ñëpp mën a bokk loolu moom ku koy xaar ci Macky di nga xàddi parce que acte teg yëpp politiquement mooy acte yoo xam ne duñ jëm ci élection yi leer dañ daan wax ci jamono nay leer nay leer saay Abdou bëggul lëndëm boobu Abdou Diouf moo doon organiser élection lu tax ñu doon wax loolu mooy en 92 Abdou Diouf bi ñuy waajal ay élection daf fi teg code électoral bu bees def code consensuel ñëpp déggoo ci mu ne lépp loo xam ne ci wàllu politique ci réew mi déggoo nañ ci rek man dinaa ko jëfee du ma ci dindi dara loolu Abdou Diouf a ko waxoon moo tax ñu ko doon bàkk naan nay leer nay leer saay Abdou bëggul lëndëm ba ñu egg 2000 Abdou Diouf daanu Abdoulaye wàdd bi mu ñëwee en 2012 sunu borom dogal coow li bari lool ci 2011 bi ñu demee ba opposition bi taxaw. ne wóol wunu Ousmane Ngom kii di Abdou Diouf Abdoulaye Wade dafa dindi usmaan Ngom euh, dindi Ousmane Ngom indi kii di général Cheikh Gueye Cheikh Gueye organise élection yi élection yooyu Cheikh Gueye organise woon moo indi Laye Wade daanu en 2012 Macky Sall toog léegi nag Macky Sall toogaay bi mu toog wala fi dañ ne ku yokkul dangaa ngaa wàññi waaye moom bi mu ñëwee dafa wàññi suñ démocratie wolof yi nag dañ ne lépp lu tas sëy nuyoo woon na ca ngoro ga waaye dañ kaa fayul woon ndaxte bu ne Macky Sall wax ci élection yi mu fi dem woote te yorul carte d'identité boobu mooy ministre de l'intérieur mu dem voté maa tey voté ci force parce que mooy ministre de l'intérieur te yorul carte ku mel noonu nag buñ demee ba bis ñëw ñu fal ko kon yii di am yépp du nguur moo ko yóbbee ndax bi muy nekk ci opposition daan na doxalee noonu parce que ki sañ a wote te yorul carte d'identité Macky Sall moo ko fi def kooku tey bu demee ba nekk maire président di def ma tey warul bett kenn lu tax ma ni la maa tey lay def te jiituwul tey de biñ jigee ci élection présidentielle 2012 rek danoo daw ba 2016 rek mu changé constitution bi juróomi at yi ñu ko àppaloon pour ñu dem ci élection Macky Sall fexe ba yóbbu ñu référendum ne léegi mun na jiite réew mi juróom-ñaari at pour première mandat am pourtant juróomi at lañu waxoon ji nga ci jamono jooju. mi ngi nekkoon référendum bi le 20 mars 2016 le 20 mars 2016 boobu la président Macky Sall def référendum bi mais jamono bi muy def référendum bi président Macky Sall li mu waxtaanoon ak opposition bi te yaakaaroon ni moom lañuy ñuy déggoo bu ma juumul mooy le 20 mai 20 mai lañ jàppoon référendum bi. opposition bi taxaw di xaar rek mu ñëw bett leen maanaam gars di xaar mais Macky Sall ñëw dóor référendum bi mars bett opposition parce que xam na ni jamono boobu taxawaay bi amoon ak organisation société civile beeg yooyu ak réew mi ak ñoom Seydou Lamine Niass taxaw bi ñu taxawoon ngir ne nan wote non ndaxte non boobu moo ñu jural lii ba ci Idrissa Seck dan wax naan côté wii di nga ne wuyaa yooyu yàlla dogal mu def lu ko neex 20 mai mu jékki-jékki rek taat jàpp bi def conseil des ministres dóor tej tej na lii pour bett gars yi parce que boobu il fale que mu bett gars yi pour am lu mu bëgg ñu jógee ci loolu mu dem deux mille élection 2019 2019 ñu xool organisation élection yi balaa ñuy waaj élection yi rek kii di Karim Wade kii di Khalifa Ababacar Sall Macky écarté na leen. taxaw ni cinq candidats ma ci doon waxtaan ak benn kilifa mu ni ma ji nga cinq candidats yii muy teg nii dafa xam ne kenn du ko ci gagné léegi day def de telle sorte que élection yi am crédibilité moo tax Sonko bokk mais boobu Sonko xam na ni ñorul te amuloon poids électoral ak moyen yi tax mu mën ko gagné waaye 700000 voix yi ko amoon loolu dalee na bettoon ba tiital leen. parce que Sonko bi muy dem en deux mille dix neuf moyen sax ci côté xaalis des na parce que am na benn yoon bu mu waroon dem Kaolack jour boobu presse bi ak convoi bi danoo tardé parce que am ñoon xaalis deux mille dix neuf Macky amoon na ay problème xaalis mais suñu borom suturaal ko gëm naa ne bu amoon moyen sax mooy jël deuxième ci kanam Idriss Seck mais boobu y' a beaucoup de desul woon teg ci coalition yi yi nekkoon ci ginnaawam bariwuñu bu yàlla dogal mu am 700000 voix def résultat boo xam ne bu doy waar 15 pour cent gaay ne waa ji am na yoon wu mu jëm Idrissa Seck jël deuxième pour la première fois ci Sénégal ñu dem élection recours conseil constitutionnel amul en 2019 loolu ci Macky la xewee loolu tax Macky ak Idrissa Seck bi Idrissa Seck fekkee Macky rek warul woon bett ñu bari bi Idrissa Seck fekkee Macky warul woon bett ñu bari parce que nan la mën a demee élection nga contesté élection ba pare ne du mu def recours te loolu. Idriss Seck moo ci dugaloon opposition parce que boo jëlee deuxième ne du ma def recours ki jël troisième jarul mu koy def moo tax ñoom Sonko dem toog mais ginnaaw gi comprendre nañ ni lan moo waraloon defuñu recours parce que gis nañ Madické Niang bàyyi na politique Issa Sall dugg na ci nguur gi Idriss Seck fekk na Macky kon sonk rek moo xamul woon li xew mais boobu gars yi am na ci lu nekkoon loolu tax élection 2019 xel yi bari tey ci ak ni ci Abdoulaye waat doxale woon dem protocole de Conakry ñëw na nañ toj urne yi ñëw maandu ci élection yi téye loxoom élection 2019 PDS dafa téye loxoom léegi bi ñu jógee ci loolu rek yi waxam yi njëkk mooy bàyyi naa njuñ njaaj ay kàddoom yi njëkk mooy bàyyi naa njuñ njaaj parce que gis nañ li fi xew ci élection législative 2017 2017 ndakaaru kan moo gañe kan moo gañee ñu dem ba guddi rek 3 heures du matin ñu ne bennoo moo gañe pourtant ñun ñëpp bi ñuy tëdd dañoo jàppoon taxawu ndakaaru moo gañe biñ teg ci acte trois décentralisation boobu maire yi ci ëpp doole ci réew mi ci taxawu Dakar lan ak xalifa ñu créé acte trois décentralisation pour affaiblir maire yi maa ngi fàttali ko emprunt obligataire bi xalifa Sall defoon pour ñu jox ko xaalis Amadou Ba mi bloqué ko moo tax Barthélemy Diaz waxoon na fi dina def lépp ba Amadou Ba du falu tey ji ana Barthélemy tey ji ñi ngi wax loolu tax man bu ma gisee waa taxaw yi déggoog nguur géeg yooyu damay posé ay question leen nguur gi tegul ci àddina mais avant ñiy tëj xalifa gàllankoor bu ne xalifa dund na ko ville de Dakar surtout emploi obligatoire boobu tolloon ci ñaar fukki milliards ci kopparu xaalis Amadou Ba mii moo ko bloqué woon mais comme danoo jàpp ni sénégalais yi danoo amnésique ay nit la ñuy fàttee bu nu tëddee ba yow lan reere woon xamatuñ ko léegi day permettre yow ngay def li la neex maanaam Macky man dama jàpp ni nit ki def lu ko neex la man loolu laa jàpp maa tey ay loi fii ay règlement fii ay éthique fii ay morale fii non bëgg naa tëj xalifa tëj naa ko bëgg naa tëj Karim tëj naa ko élection 19 lijjanti naa ko parce que élection yoo xam ne balaa ñuy dem ñi la war a daaneel yépp te xëtal nga leen dugal parrainage bu ñu xamul lu mu doon ñu jóge ci loolu nga ñëw toog ne bay naa njuñ njaaj kon yow sa premier mandat li ëpp ci la ca xewoon est-ce que du njuñ njaaj ah parce que boo nee bàyyi naa njuñ njaaj kon daan nga njuñ njaaj njuñ njaaj yooyu nag jugewu fi tubaab bi nee na ça c'est le naturel il revient toujours au galop jikko ak borom pax looloo tax tey jii bu Macky sàll di jëf yenn jëf yi nit ñi naan noo Macky li mu def nii mais Macky noonu la mës a doxalee lu ko neex la xam Macky moo fi toog ne ay directeur général ay directeur général la dem leen campagne ji ku gañewul sa gox ma dàq la jugé wu leen ci résultat wala dara ay def nga liggéey bu baax ci direction bi mu la dénk wala ministère yoonam nekku ji mooy yow demal élection ku ñàkk soo gox ma dàq la wax ko à l'aise quoi yoonam nekku ci 2017 Amadou Ba teel naa la Khalifa xanaa léegi mën nga gañe parcelle mun ngeen gañe Dakar 2017 waxoon na leen ko teel naa leen gars yi est-ce que nga leen a gañe xam ne ku mel noonu tey jii mun ñu demee ba naan tas na sena ay conseil constitutionnel def na fa ay pàccoxoo Sénat boo xam ne 2015 la waroon jeex. nga bàyyi fa duudu ndiir mu toog toog parce que feeg mi ngi fay toog di def li la neex rek parce que de quinze ak tey jii local am na fi législatif am na présidentiel am na fi boobu Sénat arrangé woon na ko parce que li mu bëgg Sénat mi ngi ko doon def ñu dem ba tey Sénat li mu bëgg Sénat defatu ko nguróom jeex na dans deux mois mu nekk mu naqari ko day dem waa Sénat tamit joué le xam ne nag bu la leeree ni da ngay dee jaru ngay xaru parce que Doudou Ndir ak ëllëgam ak jaar-jaaram dans deux mois même beneen nguur bu fi ñëwee Sénat bi dañ koy tas parce que ñoom seen mandat jeex na mais du xaru ba da ngay dee looy xaru di yokk sa bopp ay bàkkaar di yokk sa bopp gàcce waa Sénat bi def loo xam ne arrangé wu ko loolu nag mooy dëggal ni durant li fi Macky Sall nekk yépp képp ku mu fal defew lu ko neex dalay lay dàq comme lu ma la waxoon sànq ci directeur général dem leen élection ku gañul ma dàq la te kii yow dindi président Sénat mais boo koy dindi lal la la wax un tiers yi mais dafa am benn vide bu nit ñi di wax parce que comme gars yi légalatuñu même boo fa ña nga fay bàyyi ci ban cadre nga leen fay bàyyi loolu tax Macky Sall dafa créer conditions yëpp pour man pour mënoon bés bu jekkoo sénateur leen rendi leen te def na ko. parce que jamono bi naan Sénat dafa war a jox ay fiches de parrainage Ousmane Sonko teg ci jox ko dëgg ci koromu de direction générale des élections loolu neexul Macky sàll mun a jóge leen fii parce que ba ma leen fii teg pour sama bopp la man li ma gën a metti ci nguuru Macky sàll mooy da lay dénk réew nga foog ni yaa ko moom maanaam yow da la dénk mais nga foog ni yaa ko moom alors que dénk gi la dénk moo waral bu ndawlee juróom-ñaari at ñu ne nan dem élection pour ka ñu xolaat leneen parce que de bu doon loo moom mun nga gis xalif général bu ñuy defal élection naan mandaam jeex na mun nga gis buur bu ñuy defal élection naan mandaam jeex na buur Maroc daf fay toog ba jógee far rek keneen toog mais keneen xalaatul sax nan nan tànn kii wala kee mais bu ne danoo nekk dans une république maanaam tey jii mun na am bu nekkoon ci royaume yi du nekk président parce que réew mi am na nu mu doon doxee démb. mais danoo dem ba ne nan génn ci loolu duñ xoolati nit ki juddoom duñ xoolati nit ki santam duñ xoolati nit ki ngarmeem mais danoo nekk ci république nan xool ku nit ñi wóolu rek tànn ko mooy li sa Seck doon wax même si bu dee li ñuy jëm Ousmane Sonko dëgg la bu sénégalais yi mënee fal ab violeur nañ ko fal parce que sénégalais ñooy tànn parce que gis nañ ci ay réew ñuy fal ay prisonniers mais pourquoi Macky sàll moom foog nii li mu bëgg mu war a am te la kilifa ga doon wax na ko benn kilifa bu mën a doon rek war a maytu maa ko mën man kase maa ko sañ man dong man dong maa ko xam mais bu lor di am mais sa kaw la jëm réew mi da la kaa dénk moomoo ko te réew mi daa am ñoo ko bokkal daa am ñoo ko bokkal mais loolu nag ñun suñu malheur la da gis kun dénk ab entreprise mu foog ni moom moom entreprise bi lu ko neex lay def nga gis kun dénk ab kër mu foog ni kër ga moo ko moom al ko yow laa dénk rek pour nga doxal di nga boo demee ba fégal sa ay jeex da ngaa war a dem rek bàyyi keneen mu dem élection nag buñ koy wax mooy dañuy dox ba si yàgg ñu ne nan nooyuwaat xoolaat leneen surtout que nag nga ni yow ma nga jël sa mbër tànn sañ nga jàppale mbër mi mais ci esportivité parce que li ngay gàllankoor nii gars yi mais bu ko Abdoulaye Wade defoon contre yow doo doo falu looloo tax tey jii tas na. Sénat bi def ci lu ko neex conseil constitutionnel mu dugal fa kakaneex neex ñii nee nañ respecté na règle yi ñii nee nañ wul yoon mais ba Macky di Macky ba tey jii lan la fi président Macky sàll def loo xam ne rek da koy def ci bëgg-bëggu sénégalais yi parce que bu ñu waree ba war a dem élection Macky moo yor décret mais lépp loo xam ne day laaj processus électoral bi. mais daf ci war a déggoo ak acteur yi nekk ci processus bi da ci war a déggoo ak ñoom lu tax ma ni la yi dafa delloo Sénégal ci wàllu démocratie ci lu bari bi ñuy dem élection 2000 mais onel bu ma juumul xaw ma FRT onel onel mais Macky Sall Abdoulaye Wade Abdou Diouf dafa fal euh, kii di général Carvalho bi mu faree Carvalho ñu ni ko mais sa parrain wu doom la waxuñu da nga ne bokk de mais comme da nga kaa bàyyi la sa doom kon am na loo leen séq kooku mu warul doon kii àtte Abdou Diouf dindi ko indi la général Amadou Abdoulaye Dieng bi opposition bi gëstoo ba xam ne général Dieng mi yoroon na mouvement bi jàppale le président Macky Sall di Amadou Abdoulaye le président Abdou Diouf Abdou Diouf am élégance su ne ah wax ngeen dëgg de xaaral ma dindi ko xaaral ma dindi ko. fexe ba élection yi jaar yoon mais ñu dem presque trente ans après Macky Sall di doxalee nii ak ñun ci organisation élection mais loolu lu ñu war a xoolaat la lii nag li ko indi mooy tiit jaxle ak ragal Ousmane ko parce que wala fi nee naan mën a waaxu xam fa nga jëm moo ko gën ëllëg lan mooy xew lan mooy xew ba Macky Sall. yii yëpp mu koy def parce que Macky Sall li naan man ba mu nguuram dañuy ñaaw ci xare bi te pourtant mënoon nañ ci rafet danga nga woote dialogue national dialogue man dialogue bi ak nu mu mën a mel ñi bëgg a dem dem nan ñu bari jàpp ni dialogue bi contre Sonko la yow nga jàpp ni danoo war a waxtaanee réew mi loolu ñu bari jàppoon. mais avec le temps dañuy dem ba gëm ni dialogue bi danga nga ko defoon contre Sonko maanaam depuis 2012 ba léegi wala 2019 acte bu Macky Sall teg wala 2017 bi ñuy dàq Sonko administration acte bu mu teg rek da ko teg contre Ousmane Sonko mbiri Adji Sarr Ousmane Sonko daf na woon Macky Sall nekk ci ginnaaw bi mu njëkkee génn ñu bari ne yoonu Macky nekk affaire privée la mais bi ñu doxalee ba tey jii. mais da ngay gëm ni li fi jaar yëpp mënoo ci génneel loxoy nguuru Macky Sall moonte dëkk li fi jaar yëpp parce que dem na ba ci tubaab yi ko doon interroger mu ni leen xaw ma yëguma tiñu ma mais buñ jugee ci loolu yoon setal Ousmane Sonko ngeen jël ko dóor corruption de la jeunesse ba tey ji ngeen tee ko ci kaso bi di wër compte max boo xam ne xam ngeen fu mu ne bi ngay taxaw fii naa nekkatuma candidat nga taxaw ni lépp loo xam ne yoon dogal na ko ci réew mi dinaa sàmmonte ak moom mais bi ñu jógee ci lool rek appareil judiciaire bi ci la yëngu ba ñu jàppee Ousmane Sonko tëj ci kaso bi mais yoon boobu tëjoon Ousmane Sonko nga naan force reste à la loi moom président Macky Sall ak nguuram yoon boobu moo wëlbatiku dal ci kaw Macky Sall Macky Sall bañ kon tey ji appareil bi yëngal bi nga ko doon yëngal yëpp dañ ko yëngal pour faagaagal Ousmane Sonko kon tey ji Ousmane Sonko li mu dundi 2017 ba tey jii mënoo ci génnee loxoy nguuru Macky Sall parce que acte yi li naan ku wax feeñ waaye ku jëf tamit ñu ràññee la mais ñoom wax nañu jëf nañu mais jëlal li nga moom mais bàyyee bàyyi Ousmane ko li ko yoon may la ko saba saba si fay jox mais nan ko ko jox la ko senaa jox nan ko ko jox mais loolu lépp ñu xañandoo ko loolu lépp ñu xañandoo ko ba mu jaral la ngay jalgati yoon di fal ku la neex di def lu la neex parce que pour man sax Macky la fal gi muy fal ni lu jafe ci moom la parce que toll na foo xam ne xam ne ñu ngi doon wax bi muy tas gouvernement bi ni moom Macky Sall am na yenn nit yoo xam ne da leen proposer ay ministères ñu bañ mais gëm naa ni jafe-jafe yi mu am sax ba jëli nit conseil constitutionnel di Abdoulaye Sylla ngir mën ko def président wu Sénat pour man dafa am jafe-jafe sax parce que nag réew mi ku am fulla am fayda am ay mbokk yu ñàkk fayda doo ju dugg ñu la ciy tudd kon man gëm naa ne Abdoulaye Sylla est-ce que sax moo doon am bu njëkk est-ce que warul warul ba réer mu ne Abdoulaye Sylla dem bay jële ab politicien sëñ Mbàkke Fall géejawaay ngir di ko dugal ci Sénat alors que Sénat ki ñu war a fal dafa war a maandu mais président du mooy tànn lépp journaliste yi dañuy tànn député yi tànn magistrat yi tànn ñëpp tànn yow nga xëy defandoo lépp léegi loolu lépp nga def ko contre Ousmane Sonko loolu tax wala fi ne képp koo xam ne yaa ngay lijjanti rek bu yàggee nga la jël te bari pexe man dama koy falal juboo ko gën xaar ban ne deux mois moo des ci élection ñu nekk ci processus électoral nga ni soppi naa Sénat conseil constitutionnel dugal naa lii mais lan moo xew lan lay waajal parce que conseil constitutionnel bi ñu dugal seen Cheikh Tidiane Coulibaly ñun bettuñu parce que le fait nguur gi. bàyyi woon xalifa Ababacar Sall mu dem conseil constitutionnel bàyyi Karim mu dem conseil constitutionnel léegi mun a Sonko di dem conseil constitutionnel dafa mel ne li mu bëgg ci conseil bi xelam mi ngi ciy tey kon léegi il faut que mu taf yëngal pour mën a am li mu bëgg parce que Sonko li gars yi di wax gàllan gàllankoor ko jafe na li gars yi namoon ci moom yépp suñu borom dafa mel ne da ci am lu mu ciy teey parce que bi biñ koy rajee di ko tëjëg yooyu boo xoolee ay Ismaïla Madior Fall génn yi ñu doon génn yëpp pour gëmloo nit ñi ni waajur nekk candidat te teguñu ko woon ci yoon mais ci mbiri politique rek lañ doon wax du nekk candidat uti leen dem ba yebal ay Cheikh Yérim sekk ak ñeneen ñiy war dëkk bi ba ci Ismaïla major mooy uti leen beneen candidat ñoom ñooy conseiller Pastef naan la uti leen beneen candidat loolu bëggewuñ ko Pastef yéenewuñ ko Pastef dem ba dem ba Cheikh Yérim di théorie sax naan Pastef buñ amee sax plan B plan B bi mun na dem deuxième tour mu jékki-jékki na plan B bi mun na gagné bo boobu def naa chronique man leen tee leen ci Cheikh Yérim parce que boobu lavage de cerveau lañ doon def pour génnee nit ñi ci Ousmane Sonko maanaam yaakaar bi ñu am ci Ousmane Sonko nit ñi nit ñi dellu ci ginnaaw mais dafa mel ne après nit ñi dalee na nand loolu tax fi mbir mi egg ni moo waral Macky Sall ak nguuram nag jamono yi. réer di jaxase di yëngal ku ne ñu fal la ku ne ñu fol la parce que course contre la montre la deux mois walla trois mois moo des ñu dem élection waa ji nga ne woon bokkul depuis deux mille vingt et un ba léegi lu ne nga gàllankoor ga mais waa ji bu nu sëggee ci wàllu yoon waa ji ba léegi day nekk candidat loolu juriste yëpp wax mais kooku problème la léegi nag yii ñu yëngal yëpp da ko yëngal contre moom. léegi mooy wane ni nag la gaay naan aatuma réeroon feeñ na waaye kan moo nekkoon ci ginnaaw li daal Ousmane ko yëpp léegi xam nañ ko parce que jëf ci Macky Sall jëf ci Sénat nag jëf jooju mais jëf jooju mooy ana ñi ma doon laajte maa ngi nii maanaam laqatu na ba sonn foo ko laajee sama yoon nekku ci bu waxee du tudd turam du lii nii waaye waajaa ngi nii la waaja doon wax naan mbër mi kenn du ko laajte bu duggee ci arène bi rek ñu ne mbër maa ngi ni mais waajaa ngi nii. mais lii lépp nag est-ce que Ousmane Sonko jar na ko parce que nag ñun ñëpp bu ñuy ñaan dan naan àddina neex na waaye yàlla nu yàlla may mujj gu rafet man de dama jàppoon ni bu Macky Sall taxawee ci réew mi ne nekkatuma candidat pour troisième mandat am nay jamono man li ma waxoon <laughs> bu ne nekkatu troisième mandat man leen jukko ak borom pa Macky ñàkk doon candidat du tax mu soppeeku loolu laa gëmoon Covid bi. bi mu demee recevoir ñoom Sonko ak man leen du teeg mu doon Macky mu doonoon man dama gëm ni Macky Sall du soppeeku ay bëgg-bëggam ak li mu bëgg la xam te li mu bëgg ñaar la mooy nit teg fi nitam beneen bi mooy Ousmane Sonko du bokk léegi nag est-ce que ci yoon la koy teg wala dara mais ba tey ji yoon waxagul loolu moom ay bëgg-bëggam la jiital mais jàmm ak pexem yàllam ak dogalam léegi nag lii Macky di def yépp mu doon maa tey opposition bi créer FIT front pour l'inclusivité et la transparence des élections ah baax na waaye lan moo xew làmbatu bi opposition bi di def xam ne nag walla fi na bari bal taxuta mën a jam waaye fitay jam neexul ba neexul opposition bi benn càppaacoli la am benn gaynde la am mooy Ousmane Sonko dafa bari ay yambar fanaanoo ah c'est vrai waaw parce que M2D Yewwi Askan Wi fu bee passé la leen fi créé woon tey jii ñu ñëw ci fit mais fit c'est bien mais mais mais heure bi ñu ko teg. jamono bi ñuy jàpp Ousmane Sonko lan moo leen teewoon am fit ba ne du dem jamono bi ñuy barricade këram lan moo leen teewoon am fit élection yi ñu jëm ak parenage bi xam ne dara baaxu ci man loolu laa gëm parenage bi nii bari na ñoo xam ne duñ am parenage parrainage yi ki mu yaakaar ni moo nar a am parrainage kooku la bloqué mooy Ousmane Sonko mais ñeneen ñi mu jàpp ni yëpp mën nañ war réew mi ba dee du am tous daf leen bàyyi ñuy wëddeelu di jeexal seen énergie jeexal seen carburant la Papa Ndiaye coppet doon wax taal télé taal rajo yàqum énergie la waaye tamit di di xeex ànd ànd ak ay yambar yàqum énergie la taxaw rek na fit yow jotagoo ci fichier électoral bi bi ñuy toll ci atum 2000 ak 2012 mais dafa amoon ay taxawaayu politique yu am ay taxawaay politique yu am mooy FRTE di front pour la régularité et la transparence des élections en 2000 dem jëli Abdoulaye Wade ñëw teg ko fi jàkkaarloo nguuru parti socialiste m gis nañ ko fi ci atum 2011 mais à deux mois des élections yow mënoo jot fichier parrainage bi dugal nañ la ci loo xam ne xamoo ko jamono bi son ko di def tournée. nemmeeku tur la lan doon wax Ousmane Sonko dafa war a toog dafa bëri coow tey jii ñoom ñu ngi leen di bloqué danoo jàppoon ni fitna gi ci kaw Ousmane Sonko rek lay dal mais tey jii Ousmane Sonko ber na ci ñoom ñoo xam ne moo leen ëpp demin te wala fi nee nan booy gunge da ngay gunge koo xam ne mu ngi ci yoon mais bi ñuy jàpp Ousmane Sonko fu nu nekkoon fan la nekkoon. te pourtant ku mu nekk ci ñoom la nga doon Ousmane Sonko moo la ko def ci ndimbalu suñu borom bu dee maire di député ak leneen lu munti doon loolu tam mieux vaut tar que jamais mieux vaut tar que jamais mais Ousmane Sonko day ay ab càppaacoli ci opposition bu Sénégal moom dong la moom dong la même boo xoolee tey jii waxuma la moom de ma ay nitam sax ñoo gën a xereñ ci opposition tey jii ay Macky xalifa Sall ak ay Karim Wade yi bu leen Macky Sall respecté woon nee na moom ñi bokk invité na leen ci dialogue bi ñu ñëw mais bu leen respecté woon mais li mu def ci Sénat def ko ci conseil concerné mu waxtaan ci ak ñoom d'abord parce que bu ñu demee ba dugg ci processus bi lépp liy laaj processus bi mais ñi bokk ci élection yi doon ci ay acteur dañ ci war a xam dara Macky est-ce que li mu def conseil concerné ak Sénat bi mu koy def dafa wax ak ñoom te ñoom danoo foogoon ni fitna gi ci kaw Sonko rek lay dal. mais tey ji ñoom ñëpp ñoo bokk nattu bi parce que élection yi du élection ko kase xalifa bu bëggee bokk xanaa ci élection yi jaar yoon Karim bu bëggee bokk xanaa ci élection yi jaar yoon kon ñoom dialogue ba nu demoon ban njariñ la nan amal parce que après dialogue bi lan la leen jural lu dul doon candidat déclaré candidat déclaré mais ku mun a ci ñoom am na lu la desee pour nga mën a convaincre sa bopp kon tey seetaan duñ doon seetaan Sonko ñoom ñëpp moo këpp seen kaw moo jax ñu créé fit mais dama ne fit jarul di wax bari bal taxut a mën a jam fit mooy jam ba Ousmane Sonko di jug di xeex ñoom ñëpp dana woon ci waa kër ñàkk jàmm la bokk bëggul lii bëggul lii xeex ba usmaan Ousmane ko doon xeex bu doon ni dañ ko xeexoon ca njëlbeen jàppale ko ci ci njëlbeen duñ egg fii léegi nag mbir maa ngi nii ñu mett leen devant le fi accompli mais fi ñuy tëjee rek mooy aussi ah, El Hadj Modou kon euh, jeex na di la gërëm di gërëm euh, topp di gërëm ñëpp di leen sant di jégalu ñëpp nag di baalu ak ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di gërëm baax Seydina Aline Fall mu nga ca kunu na moo ñaw ñaw bi nag ñu ngi koy gërëm bu baax a baax Seydina alin Fall mbokk yi jërë ngeen jëf